Akhlou Brick Paradise mu nekk groupe boo xam ne nag ñaari nit ñoo ko composé ñu yàgg di ànd lool ci rab bi tey nag Akhlou Brick Paradise lañ leen indil yéen ñi bëgg xam jaar jaaru Akhlou Brick Paradise topp leen ñu ak Authentique Prod Mamadou Sarr ñu gën ko xam ci Mista Ara ki ci des tudd Pape du Sène ñu gën ko xam ci Deysa la ñu nekk ñoo xam ne nag dañoo yàgg bëgg hip hop yi depuis que ñu nekk ay xale yu ndaw waaye nag ñi ngi commencé teg seen premier pas ci hip hop yi en 2004 waaye nag en 2007 ci lañ officialisé seen dugg ci rab bi ngir wane seen bopp bu baax a baax a baax entre 2004 ak 2007 Akhlou Brick Paradise participé ci ay concert yu bari bari yoo xamante ni ñi ngi ko daan amalee foofu ci biir Mbour ngir lan ngir mën a am une bonne doon base locale loolu waral seenu tàmbali yëpp nekk biir mbuur ngir bay ci say weewu tànk te ku say mbokk tàccu rek nga mën a fecc te feccum liir bu neexee nday jaa jàpp ca mbagg ya loolu waral seen début concert yëpp ñu ngi ko doon amalee foofu ci biir mbuur turu ëxlu birik paradise maanaam tur bi nga xam ni moom la ñu tuddee seen bopp la lay signifier ëxlu nag baatu araab la mën naa tekki ndaje mën naa tekki mbooloo waaye mën naa tekki kuréel birik renvoi à woowee birig paradise nag tend vers la satisfaction kon nag ku ni paradise ne paradis loolu nag liñ ci mën a déggee mooy bànneex ak mbég ñoom nag ñu daal di former groupe boobu di lu birig paradise pour vivre de leur passion ñoom nag ñu nekk ñi nga xamante ni dañoo am benn conception à la natif di rap di ko suivre topp reeni rap ba noppi bañ koo waaj ba tax na nag seeni texte boo ko dégloo rek nga xam ni day nekk à la pointe de la poésie nga xam ni day doon lu balancer lu amusant loo xam ni foo ko déggee rek da ngay xam ni li ñu seen texte yi lépp ay jàngale keneen ba tax à chaque fois bu ñu génnee rek di nga xam ne ñii li ñuy def lu ñu jàng la te lu ñu mën waaye nag ginnaaw amuñu woon rap typiquement fait dans leur localité ci la ñu décidé li nga xamante ni moo di représenter Mbour dans la mouvement hip hop lu Brick nag ci ndorteelam ci la génnee ab son tuddee ko ñun la booyu kan mu nekkoon son boo xamante ni nag son bu am buzz la Sénégal ñëpp daan ko déglu ba tax ñëpp commencé di leen bàyyi xel fii ci Sénégal di laaj ñii ñooy ñan ñii ñooy ñan ñu commencé siiw commencé law baax a baax a baax soo bi nag nekkoon soo bu nga xamante ne sous téléchargement gratuite la woon waaye nag ginnaaw Akhlou Brick fulla fayda jom ak wóolu seen bopp bi nga xam ni def nañ ko ci seen liggéey ñu mujjee doon groupe de rap bi nga xamante ni moo gën a siiw foofu nga xamante ne moo di mbuur rawatina ñu naan ko la petite côte teewul Akhlou Brick daal di marqué li nga xamante ne moo di seen empreinte surtout tout le territoire sénégalais ñoom nag ñu nekk ñi nga xamante ni seen concert yi de plus en plus daan fekk lu fees lool loolu nag ci lañ publier benn mixtape bi nga xamante ni ay son gratuite la woon rawatina son yooyu ñu tuddee woon sama choice sama choice nag nekkoon son bi nga xamante ni rajo yi télévision yi matin midi soir dañ ko doon teg xale yi mokkaloon ko lool mu doon son bi nga xamante ni defoon na buzz loolu fii ci Sénégal. Akhlou Brick nag daal di génne li nga xamante ni moo di indi innovation dans la scène sénégalaise ba pare nag nekk li nga xamante ni entreprise la wala ñu mën ko woowee famille ba pare nag plaisir bi nga xam ne ñu ngi ko doon jox seeni fans saa yu ñuy def show le 17 octobre 2015 ci la Akhlou Brick Paradise génnee premier albumam bi nga xam ne mi ngi ko tuddee woon Rêz Rêz nag nekkoon album bi nga xamante ni mi ngi àndoon ak 16 titres album bi daal di am benn succès inattendu au Sénégal jusqu'à mu devenir bokk ci album yi nga xamante ni moom la ñu gën a lu foofu ca diisi ah. ba tax sax mu daal di jiitu ci ñi nga xamante ni ay star yu mag a mag lañ ñu ci mel ni maître en décembre 2016 ci la lu Brick génnee benn projet bi nga xamante ni ñu ngi ko tuddee woon ADBD ADBD nag li mu doon tekki mooy alkaati du bàyyi dóor mu nekkoon nag onze titres dans les titres nga xamni bokku na ci titre yi gëna si ku ne xam ko ba tax mo bobu expression anglais bi ku ko xam rek ak lu biré ka tax nga xam ko muy am sorry I'm sorry ne kon na song bi nga xamanteni sénégalais yi dañ ko mokal mokal ba nga ne ma lii lu mu doon amat na benen son bu tudon c'est possible c'est possible tamit même que am sorry sénégalais yi lu ñu maîtriser won la lol waye it amat na benen son bu tudon benn beni alléluia benn benn alléluia it son la bu nga xamanteni won sénégalais sénégalais yi maîtriser woon nañ ko lool décembre 2016 ci la Akhlou Brick Paradise daal di remplir stade Demba Diop bu Dakar ñetti weer rek lañ ci teg mu daal di remplir li nga xamante ni moo di stade de avant que muy enchaîner tournée nationale bi nga xamante ni moom la amaloon mu ko tuddee woon comme titre album bi muy ADBD waaye nag Akhlou Brick Paradise yemul foofu en décembre 2019 ci la génnee benn nouveau album tuddee woon ko Hello World hello world nag nekkoon benn album bi nga xamante ni mi ngi àndoon ak 16 titres album boobu nag gis nañ ci ne Akhlou Brick dafa relever la barre ba noppi yëkkatiwaat niveau rab bi ñu gis ci nag ay changement ci ay qualité vidéo yi nga xamante ni daaw ñu ko faral di gis ci géewu rab bi ginnaaw gi nag si lañ organiser seen hello world de tour def ay tournée internationale comme niñ ko organiser woon ci ADBD de tour def tournée nationale bi nag hello world tour la ñu organiser ngir def tournée internationale en août 2018 ci lañu génnee nag benn son bu tudd nii la ànd ci ak Wally Ballago Seck mu doon son bi nga xamante ni defoon na buzz loolu Sénégal neexoon sénégalais yi ba ñëpp daan ko déglu son bi nag li taxoon mu neex dafa nekkoon ñaari star ñi féete ci rap kii féete ci mbalax ñu daal di koy ànd mixé ko mu neex lool ñu daal di relever la barre très haut en janvier 2020 Euhlou Brick Paradise génnee benn son bi nga xamante ni ñu ngi ci defoon featuring ak Bastoun mu nekkoon son bi nga xamante ni son bu ñëpp doon déglu la ñu tuddee woon ko juróom kase juróom kase nag ñu defoon defoon ko ak Nescafé waaw waaw e wala cawarte mu nekkoon son bi nga xamante ne nag ñëpp ko doon déglu mu defoon buzz lool ñu bëri daan ko challenge groupe Akhlou Brick Paradise en plusieurs fois ñu di leen nome ci ay award yu nga xamante ne musique la bu hip hop waaye nag ñoom ñu remporté ay prix yu bare bare bare bare waaw yow mi di laaj ndax Deyza ak Aara am nañu soxna waaw am nañu soxna en 2018 ci la Deyza marié wu ak benn soxna su taaru lool waaye nag diir bu gàtt lañ ci teg mel ni feebaru Deyza dafa wàll jamono boobu yàggul dara ci la aara yi takk benn soxna bu ñuy wax Mama Sita Mama Sita nag nekk sœur ci ki nga xamante ni mooy Queen Biz Queen biis nag nekk benn woykat bi nga xam ne kenn dootu ko présenté fii ci Sénégal lu Brick nag nekk benn groupe bi nga xamante ni rab bi indi nañ ci lu bëri yokk ci lu bëri ba noppi changé ci lu bëri indi beneen tuus bi nga xamante ni xamuñu ko woon ci rab lu Brick nag nemeeku nañ ci ñoom ay clashante yu saf-sap ci seen diggante ak Ngaaka Blindé muy daaw ak ren metti woon lool neexoon lool ñu génne woon ay son yu neex ren ñu defaat ko mu neex lool ñu génne woon tamit ay son yu neex clashante nag yàgg na am ci rap Galsen waaye niveau bi ko Akhlou Brick ak Ngaaka indee nekk na niveau bu raar lool mu doon ay clip bu 24 ay clip yu am niveau clip yu am classe yoo xam ni franchement neexoon na lool loolu waral ba producteur bu mag boobu ñuy wax Eric boole leen ci esplanade bu grand théâtre ñu def fa jàkkaarloo ay saayfa yu saf saf ku ne wan sa moroom talent bi nga xamante ni moom la la yàlla may ñi yi nag nee nañ Ngaaka Blindé moo gagné ñii tamit ci beneen côté bi ne Euchlou Birig moo gagné waaye man de jàpp naa ni Rab seen moo gagné ndax bi ñu paree joxante nañu loxo saafonte nañu te loolu noonu mu nekkoon image bu rafet boo xamante ne lépp lépp rek ci kaf la ak reetaan ak liggéey bu jaar yoon tey nag Euchlou Birig lañ leen indiloon ñu leen di ñaanal yàlla may leen carrière bu gudd carrière bu rafet ba ñu mën a eggali seen liggéey leen di wax ni bu leen fàtte abonné te bés cloche de notification bi ngir yeneen artistes yi leen di indilaat te ngeen wax ci ci commentaire yi artistes yi ngeen bëgg ñu indi leen seeni jaar-jaar kon nag fii la ñuy yem ak yéen ba beneen yoon ak Authentique Prod